di siyaar sa caméraman bi nga àndal sëñ Modou di siyaar mbokki taali bi nga xam ne daje nañ fi yëpp di santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax ci bés bi nga xam ne daje nañ fi te lépp sëñ Tuubaa waral ko ak bëgg a gën a taaral liggéey suñ Tuubaa bëgg a gën a yëkkati liggéey sëñ Tuubaa waaye jaare ko ci xam-xam eh, daje bi nag li ko sabab tey daara ji di daara Safinatul Amaan féete ci fii ci Dakar nekk Parcelles Assainies am liggéey boo xamante ni ñu ngi ko doon sumb jamono yi weesu yëpp muy liggéey boo xam ne liggéey bu Sëñ la di benn kër goo xamante ni ñu ngi koy bëgg a yëkkati fii ci parcelle tudde ko euh, kër Sëñ Tuubaa waaye mu nekk siège u daara Safinatu Amaan waaye mu làmboog lépp loo xamante ni lu euh, luy liggéey bu Sëñ Tuubaa bi lay doon rawatina institut bi nga xam ne boole nañ ko ci biir liggéey bi ndax Sëñ Tuubaa gal képp ku koy liggéeyal euh, jàpp naa ne fi ngay jëkk jiital mooy da nga koy jaare ci xam-xam loolu nag tax na daara ji sumb liggéey bi ngir li nga xam ne sëñ sëñ Muntaxa euh, samp na ko fee ci Touba muy université bi daara ji nekk benn banqaas boo xamante ni foofu lay bàyyi ko loolu moo sabab jotaay bi nga xam ne dañ koo woote woo ci mbokki taalib yëpp ngir mu nekk benn jour boo xamante ni dañ ciy fas yéene euh, lancer liggéey bi euh, waaye fexe cee dajale koppar goo xamante ni buñ ci jógee incha allah danañ daal di mën a liggéey bi. liggéey bi nag nekk liggéey boo xamante ni coût bi xaw naa yaatu toll ba ci quatre-vingt-dix millions jàpp cent million ndax ko xam fii ci parcelle xam pàkk yi nga xam fi ñu toll 35 jàpp 40 te nekkul lu yomb kon nag day liggéey boo xamante ni murid yëpp ñoo ci war a jàpp ak képp koo xamante yaa ngi ci yoon wi te liggéey bi Sëñ Tuubaa ñor la ñu ngi lay woo ci liggéey bi ngir nga ngir nga jàpp ci kon nag eh, di ci tàllalal loxo képp koo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi bitim réew ngir liggéey bi nga mën cee tàbbal sa sa sa ñaq ndax liggéey bi suñ Tuubaa la liggéey bi lislaam na kon nag murid yëpp ñoo ko bokk lii rek moo sawaboon euh, jotaay bi euh, di santaat Sëñ Tuubaa bu baax baax sant ci murid yi nga xam ne yëpp teew nañ ci ak ñëpp ñi nga xam bëgg amoon nañ yéene waaye xewoon xëy na dañoo xaw a sori ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan Sëñ Tuubaa defal ñu euh, tawfeex ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ba mu yegg ni nga xamee ne bëgg nañ ko wala mu yegg nu kawe suñ jort barke bi xasiir Sëñ Tuubaa ñuy tubaat baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf